jana aoudu billahi min alsheytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki réew mi bokki bitim réew foofu waay mën a nekk noo ngi leen di nuyu fas yéene dikk ak yéen tey ci waxtaane dund koo xam ne senegal dootu ko fàtte muy Serigne Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir Sénégal dootu ko fàtte ngir doon gi mu doonoon ab jullit boo xam ne li ko waroon lépp ci diine def ko Sénégal dootu ko fàtte ngir doon gu mu doonoon sëtub Cheikhul Khadim liggéey liggéey yu rëy rëy ci yoonu murit Sénégal dootu ko fàtte ngir doon gi mu doonoon liggéeykat kat àddina bépp xam loolu ci moom Sénégal dootu ko fàtte ngir doon gi mu doonoon patriote panafricaniste bu bëggoon am réewam kooku lañ fas yéene dugg ak yéen ci ak dundam muy Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir Serigne Moustapha Bachirou Mbacké Eh, ibnu cheikh mouhamadul bachir ibnu xaadimu rasoul mooy taawu Serigne Bachiru Mbacke mi ngi ganee àddina Daru Salaam Kayal 1928 way juróom wii di Cheikh Mamadul Bachir xam yu ma ani taarif du ku ñuy présenté ndax ñépp ko xam way juróom soxna Binte Jaxate moom Serigne Maxuja Faafaal jaxate mi nga xam ne moog sëriñ ahmadou asta mi jur sëriñ am satu ñoo bokk wenn way jur muy maam masata dun kon diggante bii mooy diggante bi sëriñ moustapha basiru génne ñu gis ne kon dafa judd ci lislaam namp ak morit bi ñu ko taxawoo ba mat dal sëriñ mudu moustapha mbakke turandoom dalal ko alxuraan jébbal ko sëriñ daam abdourahman loo mu jàng fa ab diir ñu door koo jébbal sëriñ ibra bint mu am fa ab diir ñu soog koo jox nijaayam sëriñ mawlud jaxate fa la matule alxuraanam fa la sëriñ moustapha mokkale mokkal gu rafet def ni ay nawleem def bind ko mbind mu jub mu rafet mu aw yoon ba mu ca noppee nag sëriñ Basiiru baayam jébbal ko ki nga xam ne mu di sëriñ Habibu Mbàkke moom sëriñ Mbàkke Kajoor imaamul allaama mu jàngal ko lépp lu ñuy xam mu gis ne sëriñ Basiiru def na li sëriñ tubaa waxoon ne moom lañu war a def njaboot bi njaboot dañu leen di teg ci yoon mooy tax bu ëllëgee ñu mën a tege ci yoon wa minhu tarbiyatukal awlaada li kay yenaaloo bax daxaa rasaada loolu nag la sëriñ Basiiru Mbàkke def ci sëriñ Moustapha ba mu ci sëriñ Abibu la dellusi ci loxoy sëriñ Basiiru Mbàkke mu yaral ko boppam yar bu rafet boobu nekkoon ci moom nga xam ne moo rafetaloon aw doxalinam ci lépp ak ci képp ak ci fépp وهو قدير فاكر به ربا نما عني الرداء وساق المنادي والجناب nee na ku bëgg diine lislaam la na tàmbalee ci yonent bi ak saaba yaa naw nag moom ba sëriñ Tuuba ba ci ñi nga xam ñoom la bokkal jamono kenn ku ci nekk gëstu na la nga xam ne lii ne moom nga doon jëf ci lislaam ne di la ca kañit bu baax di ko feeñalit bu baax di la ko taggalit bu baax mel ne koo xam ne kii danga ngaa ci toolam di ko bayal ci toolam ne képp koo xam ne kii liggéeyal nga lislaam loola la lay jàppee nee na loolu nag mooy bëgg lislaam gi nee na ku gëm Serigne Touba la xàmmee sama ndeyjoor ak sama càmm laay yëg ni ma sëriñ Moussa yitteel yëg googu nag moom laa doon dund ak moom ba ni ma jiitoo ak njàmbaar lañ ko mën a tuddee ndax mën na koo tënk ci njàmbaar waaye man booba gone laa li mu jëkk a wax ak man moo di rek booba maa ngi dugg jàngu xam-xam li mu njëkk a wax ak moom mooy li mu dénk ma góorgóorlu si njàng mi na eh, man bu ma xamee rek mel ne xam na loolu la ma loolu laa jëkk dégg ci ay waxam ci loo xam ne eh, da waxtaan la boo xam ne soo diggante ak moom loolu laa doon dund ci moom teel a yëg ak njàmbaaram ak jomam ak ñàkk gi nga xam ne ñàkk na koo tal dara lu dul responsabilité boppam masuliyaatu boppam da ko jógaale rek man nag loolu laa doon tiit ci moom teel naa ko loolu laa teel a yëg ci moom ba di métti lool ragal mu am benn gàll ay gàllankoor foofu foofu nag la mbiram dëgg dëgg sax euh, euh, tàmbalee gën a di yéeme ndax yenn bu rëy bu dis boobu ci tolluwaayam moom ci boppam diggam ak adduna ak tolluwaay sëñ Basiru boole yépp yenul ko boppam loolu sax mooy kiimaan gi ndax dafa mel ne booba su dugg na lëg-lëgu adduna xel fa bàyyi ko ci sa borom moo moo tudd ak leer bu tawee si nit yi jukko jukko lay doon jukko yi nag bu ñu fàggoo xel ma day xel lu amal njëriñ ñëpp yàlla gën koy xel ci jaamu yàlla ragal yàlla topp yàlla bàyyam fàgg ko ci yar ko ci taalibe mos ko may benn yoon fu mu yekkee nàkkam ci njub ak liggéey doom sëñ Bachir loolu doy na nit doon ko xam ne kii amoon na diini moom taalibe te liggéeykat loolu ñëpp xam nañ ko ci moom. Cheikh Moussa Bachir moom dama digg moom day loo xam ne moom dañ ko susul day jë day jëf yàlla suñu borom. jàng ci moom ak taalibe jàng ci moom ngor jàng ci moom diine jàng ci moom jom ak ko maandute ak ragal yàlla ndax bis ma àndee ba bisu tey bii may wax ci moom de mosuma xam ci moom lenn lu ak jub ku mat sëkk te am personnalité te diñ di nit ku amu fit te mën a jaamu yàlla te way ci pas-pas lañ ko ma sax xam ak dëggu ak bëgg sëriñ Tuubaa goo xam ne yi dara desu ci yéenam ci lislaam itam rëy na yaatu na kon nag ku dib jullit ku ne rek sa njort rafet na ci moom ku fonk lislaam la ku fonk alxuraan la fu mu jëm fu ne bala bu dee xëy war faa jëm bala faa dem dina julli suba doo doo ko xëy te fu jullee suba ba dugg ci oto bi mu ngi ci alxuraan yi ba ba muy wàcc ku am ak taalibe ku bëgg sëriñ Tuubaa ku bëgg waajuram wa di Cheikh Amadou eh, mu yar ko jaarale ko fa mu ko jaarale Eh, mu doon koo xam ne eh, doxalin rafetoon na lool. ni ab sëriñu murit war a mel noonu dafa mel da ko judduwaale. li indi Cheikh Moussa Bachir yàlla melal ko ni mu ko melal sëriñ Bachirou dafa takkoo ak sëriñ Touba. juróom-ñaari at yu mat sëkk. yoo xam ne jonjoo na ko ak sëriñ bi. ba tax na jëlee na ci sëñ Touba loo xam ne gannaaw bu mu doonee wéy juróom. taqoo ga sëriñ Bassirou am na ci cëru boppam boo xam ne kenn fekk ko ca loolee nag wàcc si ba yàlla jox ko seex mu Moussa si mu jaarale ko fa mu ko war a jaarale yar ko ni ko ci yoon yu ko sëriñ Touba tegoon mu jël mu Moussa Bassir teg ko ca. def ci moom éducation bu wér waaye bi ci ëpp solo mooy xamal ko kuy sëñ Touba ak fa mu ko war a teg daf ko waxoon ne ko maa ngi lay dénk dénk boo xam ni loo ca moy dana mel ni. naaju njolloor ñu di la ca doxloo te soloy dal ne ko bi ci jëkk fekk maa ngi dund maay sa buntu ci Sëriñ Tuubaa nekk sa wasila bis boo ma noppee gis képp ku ñu wax ni moom mag ci njabootu seexal xadim jàppal ni jëmm jaafane bu dara dox sa diggante digganteeg moom lu mu joxañ na ko dagg loolu la ko sëñ Bachir dénkoon sëñ Moussa Bachir nag remplir ko dox ko ba mu sëkk. kon nag lépp loo xam ne lii kër sëñ Touba ngi fi doomi sëñ Touba yaa ngi fi suñ ñëwee ci ndigal dañ leen di bëgg téye leen sagal leen. lépp lu ñu bëgg ñu nekk ci ñoom. sëriñ Basiiru bi muy wàccub liggéey waaye juróom bi sama bàyyi tàggoog moom ci néeg bi ba noppi ñëw ci saal bi di ko wax sëñ Cheikh Mbacke kenn faat na nee na sëñ Basiiru mi ngi toog ci wetu sëñ Cheikh nee na bi ma ko koy wax maa ngi xool xar kanam sëñ Moussa Basiiru booba bu bu soppi ko woon rek ma xam ne li fi sëñ Basiiru bàyyi. dana booy dëgër gu mel noonu la sëñ Moustapha def tasaare ci tasaare ci mboolem ñi mu yar muhammadan bi nasmin wa nasrin wa huwa nimasatu busuri kitaabullahi wa sunnatullahi at moomu nag yàlla def na ci la ma yàlla xëy na nag si eh, bëgg a génn jàngi te moom dong laa si yaakaar ndax te xaw ma woon dina mën a bàyyi déet ma am benn ci bustaan ma am benn bis nag wax ak moom ba may moom it xaw ma woon la ma ci bëgg danaa ko amam ma xamal ko ne ko fi mu toll nii eh, gisuma ci ko bëgguma dara daal lu jàngi loolu daal moom rek laa bëgg moom si mën dimbali te booba yéewat saa ko ba nga xam ne booba lépp booba lépp maa ko maa ko maa ko maa ko at muy tiis la mu naqari moo xam ne sonn na ci loolu moo xam ne booba bàyyi ko gannaaw sax demee booba yitte ji dama ëpp doole rek waaye booba bàyyi ko gannaaw di dama métti na ma lool waaye yàlla def muy mbirum yàlla mu yàlla dogal rek bi ma ci waxtaan ak moom moom mu mu mu daal di mu ko woyofal toyyu am ci yaakaar bu baax daal di mu si ànd ci ànd ak man foofu laa ko bàyyi yàlla def am si bett mu ànd si ak man lool kon mel ni daal kon loolu kon lépp am naa ko. arakam eh, noonu moom la la la la ko la ko bàyyam defoon rek nga mu taxaw ci moom. ci te fi mu sëñ si si Sofane mosuma ci am dërëm mu sëñ Moussa mosuma si Sofane mu sëñ Mountakha mi fi nekk tey ak sëñ Abdou Akim ñoom ñëpp ku ci nekk boo nekkee bërëb fi mu saa wala téléphone loolu suma sama xanaa toog ci suuf. personnalité bu mag boobu ko yàlla joxoon te dund ko ànd ko mboolem ku nga xam ne xam na ko itam a ak moom dund ci loolu lépp lu jëm ci. Euh, liggéeyal sëñ Touba ñor ko lépp lu mu daan def loolu rek la ndax léppam Cheikh Amadou Bachir la ko joxoon liñ ko xàmmee lépp nag mooy nangoo liggéey organisation liggéey nee ndax doom yi man sañ na ci fii ñu toll li ñuy bi nga xamante ni ñu ngi war a jàngale jikkoom ak i meloom amatul jotam amatul wéram waaye nee nag moom mii kat lu bari jàngal na ko ko ci nee moom kat lu ko sëriñ Basiru jàngaloon jàngal na ko seen i baay nee na it ànd nañ ceeg moom bu baax a baax nee lu lépp loo xam ne lii sant nañ ko duñ ca bàyyi dara lu ñu xam moo leen ko xamal nee na bëggatu ñoo xam dara yëpp sëriñ bi xamut lu mu lu mu leen xamalut man ngaa programme sëñ Moussa heure bii bu ma demee net daan fekk muy jàng alxuraan heure bii mi ngi ci doggi xaside ya heure yi ma ngi ci ahsaab ya heure yi ma ci wirdi ya heure bii génn ci mbooloo ma bi bii fàttu na di dallu heure bii mi ngi wax ak njabootam di xool nos mbiram. sëñ Moustapha man su ma ko bëggee def champion ci olympique yoonu murit mooy kilifteef champion ku jiitu jiitu ku war a topp topp carte d'identité boo ko mën a jox ci àdduna booboo ko gën a te booba it day bi xam ne ëpp lu mu jëriñ na ko nangu gee topp joxoon na ko cër boo xam ne fu mu teewal yoonu murit sag ba mat sëkk muy taalibe mu nekk taalibe defe na ne lim la wax nekk ci moom moo nekk ci yow noonu la mel. sëñ Moustapha nag dañu koo xam ni kii dafa naqaree xam ndax fi mu jaar fépp dafa neexut a ci kóllëre ak bokk ci jàpp te lépp moo ma jàpp jàpp boppam. xam nga diine xam nga jamono ak xam nga boppam matoon na sëkk. ni mu juddoo ganee ko addina ba ni mu demee xuus na ci adduna ba génn te dara tax ko dafa set wecc. ci lépp. loolu rek nag mooy li ma ci gën a yéem mooy lëgg-lëgg bu adduna boobu mu xuus dugg ci adduna xuus ko ba jàll te dara dara gàkkalu ko loolu rek man moom laa ci am lu ma ci yem lu ma ci <laughs> lu mu nekk lu ne organiser ko itam gënee ndax nit ku yàlla mayoon eh, mën naa ne sax perfectionniste lu ne dugg lu ne la ca gën lay wut résultat ba. li tubaab wax ne. un homme ku xam jamono mooy Serigne Moustapha ba sujet boo ko mos a wax dana lii tegal suuf wala defal. liggéey ak jaamu yàlla daal ak jàpp suñu jaamu loolu xamoon naa ko ci moom ak tam nag dimbali bindee fi ndax fii kat dimbali daanaka gannaaw ne li mu fi li si ak bi kenn xam nu mu toll. dégg na mbir yi te xam ko doon na koo xam ne it ku am engagement la ku dëgër. neenoon na ko xam ku mën kuy dégloo kuy dégloo la lu war a def lu xam na ko te dana ko def lu mu war a xam na ko te du ko def muy koo xam ne dafa am qualité yoo xam ne bu bokkutoon fi mu bokk sax ku ko am mata waxtaane waxuma laa fi mu bokk ndax li ci nit mooy kilifa gu jub jub baax tabe xam boppam te fonk yàlla yaaram nitu yàlla liggéeykat yàlla may ko xolu yërmande may ko xam-xam ci lislaam may ko xam-xam ci àddina zahir ak baatin baatinu axi baaba sëriñ Bassirou toll na ci diggante Cheikh Mahamadou Fadil moo fi nekk xam naa doxinu àdduna tax mu bëgg a noppal sëriñ ci lépp sàmm sàmm di ko sàmm itam ba dara bañ a agsi ci moom du ci biir du ci bitti moom moom moo doon yitteem booba wax jeeg jëf jeeg melokaan weeg doxiin weeg jëflante yi yëpp doo mën a am looy xebat ci moom ku mel noonu nag damay jàpp ne kon mooy ci li ma ko jànge mooy mooy jullit bi nga xam ne moom la lislaam soxla bi nga xamee nag sëñ Basiru wàcc na sëñ Moustapha ci ak maam ñor gu ko sëñ Basiru ñor ak doxiinam ngir da daan wax ne lu ma roy ci sëñ Basiru rek ci sëñ Touba la ko roy ndax dafa yaroo ci biir kër sëñ Touba. ku fi nekkal sëriñ bi bu bu nee fi yow loo koy liggéeyloo day xat ko laxasaay ci ndiggam du sol mbaxana du soxla sol dal loolu gis naa ko seere naa ko waaw man daal taalibe laa xam ci moom bëgg sëriñ bi xaw ma leneen lu mu bëgg lu sëriñ bi. sëñ bi du yànn ko ko ma tudd <laughs> nee na moo tax bi ma ko noppee gis rek. bañ demee ba ñaanal ba noppi rek laa daal di xëy dem joxe sëñ Fallu saa bopp daal jaar ci sama mag sëñ Cheikh Mbacke tàgg ko jaar ci nijaayam tàgg ko da yëgal ko ko daal di daal di ñëw dem jox sëñ Fallu loolu moo ko nettali loo léegi nag kon ci loolu la ne mus musta jóg ci musta jóg ci taalibe googu ba sëñ Fallu mujj na bi muy def lu njaaram rek ci ndiggante soosu moom la koy dénk. Cheikh Abdoul Ahad doyloo ko ci fànn yëpp jël baatam ak yoon wi ak màggal gi yëpp teg ko ci loxoom. lépp moo ko daan doxal su màggal Touba ma jub daf daan wax ni taalib yi nga xam ne dañ may siyaare nañ ma féexal ba màggal gi jàll ndax ndigalul sëriñ bi du ma ko boole lenn. mu teg ci loo xam ne lii itam mu di kër gi nga xam ne mooy buntu jumaa ji di kër sëñ Bassirou yàlla dogal moom bi ñuy miir eh, kër sëñ Basiiru bi ñuy miir daaru ak ak terrasse yi ak yëpp booba maay kilifa dongo yi foofu laa ko doon miire néeg benn néeg a fa neen ma di ci xamaan mu xëy joxe ko lana daloon ca màggal ka dalaanu nun ñi nga xam ne sun sun sun sun sun xel yaatuwut amuñu gis-gis ndax kër gi ni mu demee ak fi am ak ni mu placé ko am néegi di ko jox di ko joxe ñi ko ñi ko xajoo bëriwul. sëriñ Abdou Lahad mii bi nga xamee ne sëñ baa ngi jébbale si sasu jumaa ji ba sëñ Moussa di waaj ñëw sëñ Abdou Lahad daf mu mag dafa jox sëñ Abdou Lahad mii mbubb ak kaala ne ko kaala gi mën nga koo def ci sa baat waaye bu sa baay de ñëw nan nga ko kaalawoo. ndax wóor na ma ne ak laxasaay la fi indi bañ defee noonu ba oto yi départ ba ñëw sëñ Ablaat mii tey fob kaala gi laxas ko ci ndigg bi sëñ Ablaat toogee ci banc bi canapé banc photo bi nga xam ne ci la ko sëñ mu saawar a fekk daa toog ba mu yàgg mu ne ko Abdoulaat sa baay day neexatu la toogal ci kaw muy toog ci suuf daal ne ko sa baay day wàcc waayu doomi sëñ Tuubaa la daal di wàcc banc bi toog ci suuf moom sëñ Ablaat bi sëñ Moussa ne ba ba ne sëlëb ci buntu néeg bi rek dafa daal di sukk di raam wuti sëñ Abdu Lahat naa ci ma nu may ma jëm ak sëñ Moustapha mu raama raam raam ba yegg si ci moom daal di koy nuyu jëbbal ko addiye ji ne ko lii tey bëriwut ñeent fukki million yu teg la waaye soo ko laajoon ci roo it danaa ko indi te sama roo ciy jiitu ak ñu aju ci man sëñ Abdu Lahat loxoom tekki ba ne ko sëñ Moustapha mu ne ko mbàkk mu ne ko dara jëru wax jëf day sëtaxal wax daanaka waaye na nga xam ne yowmal xiyaamati lakbar sëriñ tubaa dana toog sëñ basiru toog ma séeréer sa jëf fa mu teg sëñ laat fa la teg doomu sëñ yëpp dafa boole jàpp ñépp te topp kenn topp koo xam ne nag jox ko biir bàyyi biti jox ko bi biti bàyyi biir da ko jox biiram ak bitim saa yi dama ko bàyyi moom léppam moo ko yor man naa leen na ci toog yenn weer lu mu leen gën a màgg amul waaye muñ si jëloon tey jii bu may dem sëñ Moustapha mi du ngeen nga sama gannaaw kon ngeen xam ne sëñ Touba rek a fi fekk naa ko ba tàyyi ngan googu sëñ Abdul Xaadir Ganasi waaye ñoom ñëpp maase ëmbal ko ak cofeel ak ngërëm loo xam ne man dama ci am lu wér da ko tàmbalee ci ñi ma xamagoon ñu tase moom sëñ Abdul Ahad ba ci sëñ Moustapha taalibe yi nag sëriñ bi li mu leen di dénk li muy moo di sax ci jaamu yàlla sunnatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fonk liggéey bu baax te boole seen bopp te waral seen te wéral seenu gëm te am listiqaam mooy sax ci jub nee na yàlla na suñu borom boole dimbali amin yaa rabbal alamin nee na Cheikh Moussa am ni sëñ Basiru mi ne lépp loo ne lépp loo xam ne moo daa dox digganteem ak président ak gouvernement bi na ko sëriñ bi Abdoulaye defoon ne wéyal na ko wasilatu sarmadan wa fil xalbi min niimin ila usuru bokki taalibeem nee na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp. rawatina ñi xam ne. ne rawatina ñi nga xam ne. seen baay wala seen maam sëñ Bamba ko seexaloon. ñi nga xam ne seen baay wala seen maam sëñ Bamba ko seexaloon. ñoom ñëpp nee na ñooñu ñëpp ñu ci bari daje nañu fi. dañ lim sax seen tur. ndax bëgg ñu ñu ràññee leen bu baax a baax. ndax bëgg ñu ràññee leen bu baax a baax. ñu xam ne ñoo ñi nga xam ne ñooy seex yi nga xam ne ñoo téye yoon kenn yoon wi. ne ginnaaw doomi sëriñ bi. ginnaaw rakkam yi. ginnaaw rakkam yi. ginnaaw taaw yi. ginnaaw taaw yi. ginnaaw seeni rak. ginnaaw na ñooñu ñëpp. nee boole nañ sunu bopp. nee boole nañ sunu bopp. takkoo takkoo. fas yéene yeesal sunu njëbbal. fas yéene yeesal sunu njëbbal. ci Cheikh Abdoul Khadir am na Cheikhul Khadim. ne. ne daan rim tim tur yi nga xam ne. ñëpp joxe seen bopp tey. te xat-xat bi mayu leen ñu mën a teew ba yegg ba ba def ko ne ñi nga xam ne jot nañ sëñ bi ba def ko ñu ngi koy yeesalaat ci kanam mbooloo mi. ñu ngi koy yeesalaat ci kanam mbooloo mi. loolu loolu nag déglu nañ ko déglu. ku déggul turam. ku dégg turam ku dégg turam. xam ne kon. xam sa njëbal àgg na. xam ne kon sa njëbal àgg na. la nga doon yeesal àgg na. am nay seere itam. am nay seere itam. say taalibe danañ ko dégg. say ko dégg. say bokk danañ ko dégg. say xarit danañ ko dégg. ne yoon wi nag. nanu góor ba li nga xam ne. ba li nga xam ne. yàlla may na ko sëñ Bamba. yàlla may na ko sëñ Bamba. may ko ay magam moom mii. nu si yéene. ndam lu ëpp loola. def ndam lu ëpp loola. ba ñu xam ne lim fi fekk. lim fi yokk na ko yokk na ko. loolu nun noo ko war ne loola nag nun noo ko war a def. moom. moom na mu war a mel na na war a mel mel na ni. nun noo ci des. nun noo ci des. nan fas yéene takku. nan fas yéene takku. te liggéey. te liggéey. te dégg ndigalam. te jaamu yàlla ni mu ko waxee. te jaamu yàlla ni ko waxee. te fas yéene lu mu digle. nu def ko na mu ko bëggee. ne loolu moo ñu jëme kanam. kama waarana fil xaali bokk yi seet jëmm ji nga xam ne bu ko xalifaab Sëñ Tuubaa woowee du dox du waaxu waaye day ñukk aw xelam ñëw ne groupe sukk ci kanamam kooku mooy Serigne Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir xool leen ko moom ak Serigne Saliou lii exemple boo xam ne ñun taalibe yëpp war nañ cee roy. léegi nag ñu ngi leen di gënal sëriñ bi lu mu digal sëñ Murtada mi nga xam ne xam ci moom lu jafe xam la sax xam naa pas-pas bi mu ko nangul ak fi mu ko teg te loolu sëñ Murtada ko jëf Azhar gii ngay gis liggéey ndaam gii moom la ko jëkk doon liggéeyloo boobu maa nga fa man la daan yónni dama million bi moom sëñ Murtada jox nangam di laaj ci def di laaj maa ngi kii Mbacke Ndiaye tali bi suñu loo xam ne tabaxkat la woon bu nekkoon nekkoon moom la jëloon nga xam ne maanaam moom da cee dem waa kër gi la delloo lépp itam waaye nag moo yore sa ndaa ndaam gi lañ fi jëkk liggéey ci la ko yàlla ci loxoom la ko yàlla jaarale yooyu yëpp eh, la ko waral fonke la ak taalibe ak dëggu rek nag te loolu ci la ci lañ lañ xam ba bëgg bëgg bëgg sëtuñ ko ñoom ñëpp dafa farlu woon ci ñoom ba ci Cheikh Mouhamadou Mourtada gis nga ni mu ko daa fekk see waxtu ne te bu ñëwee gis nga nam cey sonne gis ngeen ne positif bi mu ci am bi mu ciy am. doomi Serigne Touba ju fi ne. ngeen boole yéen ñëpp waa kër Serigne Basirou. ka ca mag. fi seen kanam. liggéeyal Serigne Touba. di dem ci Serigne Touba. di del si fii yéen di leen wax ndigal Serigne Touba. ngeen ànd ak moom di ko def. Cheikh Abdoul Ahad woo na ko Touba beral ay ngan ay yooni yooni yoon. bañ na ko ba digg moom àgg digg ak moom àgg na foo xam ne tey jii néeg néeg bi mu wàcc liggéey ci Touba Belel sëñ Moussa Bassirou ko liggéey daf ko daf ko jëloon ber ko ca biir buy jàng alxuraan fa lay nekk buy defi xasaytam fa nekk bis bi muy wàcc liggéey bi muy jógee ci nekk see nekk seex muru batal bi di fanaan ci nekk seen sëñ Moussa Bassirou mu ngi yëkkati xasaay ca kaw te ba mu àggee ci nekk sëñ Moussa Bassirou fa la waajee ngir wujji borom tabaaraka taala te lu fa nekk sëñ Moussa Bassiroo ko fa def kër sëñ Bassirou ak Serigne Fall gi moom li leen boole mooy jëriñu njëkk njëkk yooyu rek mooy Serigne Serigne Serigne Bassir xam nga lépp ci eh, lu doon xam ci Serigne Fall kat bu loolu jëriñ di Serigne Bassir du ko xam ndax lam lam laaj bàyyam seero Serigne sa Moussa jaay na njuréem nga du ko laaj Serigne Mortala jaay na njuréem nga du laaj Serigne Ibrahima Fall jaay na njuréem du laaj Serigne Assane Fall doom nit ñi tam ñëpp ku ne jaay nga la nga seexoon moom jëli jëli ko li ne fi moom doo laaj mukk lu tax ngay def nangam wala noo defoo nangam loolu duñ ko laaj loolu lépp nag jàmbaar ju yi nga xam ne moom laaj ko bàyyam seera ba ba mu leeroon ko kon bari na lu xam ci yoon kat te Cheikh moo la baaxee ndax moo ko laaj bàyyam seera mi sos yoon ba nga mën caa doxee ci hectare bi. nee ndax gëmug Serigne Touba am ni mu ko mën a méngaleel moo di bi Ibrahima Fall mi nga xam ne mooy royuwaay bi nga xam ne moom la ñuy wax ne moo gën a gëm Serigne Touba ci nit ñi mbubb yi sol la ñu wuute waaye xool bi moom benn lañ ci nee noonu yéen a gëmee Serigne Touba nee tax na kon nag ku koy roy na nga jiital ak taalibe ci sa bopp sunu kër gi. ne waxoon na ne nañ leen def Baye Fall yi kër Serigne Touba Baye Fall yi kër Cheikh Ibra da ngeen a bokkul mbubb waaye yéen a bokku bëgg yéen a bokku jublu yéen a bokkit ak gëm. Cheikh Moussa moom Cheikh Moussa ne keneen ñëw jëre te yaakaar ni Sëñ Tuubaa mbala mu mii am na loo nii jërëjëf Cheikh Mourou Moussa loo xam ne bu la laajee mën ngaa wax ci moom bokk na ci benn nag loo xam ne des koy beral muy tur wi nga xam ne moom ñëpp koy waxal léegi nag muy Sëriñ Tuubaa man teg ci teg ci nag kam doon ndax loolu bàyyi woon ko ci xel xam nga jëriñ Sëriñ Tuubaa ji di Cheikh Mourou Moussa ku ne xam ne ni mat na kam wóotu woon ko waa matal. kon xam nañ sëñ Tuubaa rek ba tey waaye ndi ko wooyee Cheikh Mourou Moussa rek bi Cheikh Mourou Fall ñëwee ah kon nag xam nañ di lan bëggoon sëñ Tuubaa lépp ma nga ca moom lan bëggoon ca magam jëm wóotu Cheikh Mourou Moussa ma nga ca moom waaye mu tudd nag si am faaral nag turoo turoo wéyal na ko nag waaye bi sëñ Tuubaa Abdoulaye toogee nag mu wax turoo nag sëñ Tuubaa wan fi ñu si Abdoulaye Mbacké loolu loolu ñu bari réew na ko ci. sëñ Tuba sëñ Abdul Ahad sëñ Tuba na nga yób moo ko fi wax baatu askanale ci ci ci ci waajuru góor it ci moom la tàmbalee daanaka ndax ñu jigéen yëpp moom sax bi jaxat lañ daan waaye moo ko ko fi dindi ngir ngir ngir njàngaleem la njàngaleem la ci woon mu dem na bu daj loolu loolu moom yàlla ko yàlla yàlla yàlla ko yàlla ab ab xaasiyam la yàlla ko ko jot loolu loolu rek la Cheikh Mouhamadou Moustapha Bassir mu saarix ndax saarix bi fi ma ko teg mooy te Cheikh Mouhamadou Bassir moo ko yar te Cheikh Mouhamadou kenn ku ne xam ne Sëñ Tuubaa moo yëpp ak kenn ak nangoo liggéey bi yëpp Cheikh Mouhamadou Bassir def na ko ci kon nag na nun nan fonk bis yi mu fonkoon mooy bisub màggalu Poroxaan ak guddi gàmmu njaareem ak màggal gi nga xam ne ñun ñëpp noo ko bokk boo waaye boo xam ne nanu ko loolu nee na moom la ñu keroog mu ñaandi ci ak moom nee lam leen doon wax itam mooy seen tàmbali bii yéen ne yéen nee na nag yéen ñu ko tàmbali li nga xam ne xamu leen ko woon ci sëriñ Basiru mu di leen ko jàngal ba ëllëg gi si biir bu ngeen fi desee yéen dong fekk xam ngeen ci moom lu bari. benn doomu sëñ Touba bu mas a gis mbaxana sëñ Moustapha wala dallu sëñ Moustapha musta am. kuy kilifaam boo ko magoon ñaari fan sax bu la siine bu ñu diwee nuyoo rek bu sumee mbaxana mi dafa tànk den tase yow ci bitti te kooku it xam koy def mën na ko bañ gis bu dee waaye teewul Sëñ Tuubaa gi lay delloo jukkal. gis sa kilifa. jub ko rek sànni sa mbaxana. sukk say bëtuwam ci suuf. sama kaas yëpp ci naa ne ci moom ko jàng. ne fixé la woon bu nekkar ñu ko sëñ Abdou lay woo day wàcc fauteuil bi toog fi suuf bank ñaari tànkam summi mbaxana wuyu ko wax ak moom ba noppi dooru jógaat toog fam doon jenn doomi Serigne Touba ju mas gis mbaxanaam amul kenn xamuñu mbaxanaam Serigne Moussa Noy mel. mboolem doomi sëñ Tuubaa yi ak mboolem ñi nga xam ne magee nañ ko dara lu néew néew rek ci ci ci sëñ bi fu ngeen ñu daje rek dana leeral xam ba ñëpp xam ne ñooñu ay kilifa lañ ci moom. ñun ñoo ngi kenn gisatu la li nga nee ngir Cheikh Moustapha ni nga def sëti sëñ Tuubaa doomi sëñ Tuubaa yi fii say Cheikh Moustapha Sall ne leen bu Cheikh Amadou doon ba Cheikh Amadou Cheikh Amadou Bachir noonu ñokket sëñ Tuubaa ne ñokket du soppi dara mais ko bu Cheikh Amadou Bachir noonu ñokk sëñ Tuubaa ne ñokket bàkk yow mooy wàl bati koo soppi ko yow doo soppi ko dara sa yoonu maam yére yi yokk ko baax ndax nu ñëpp a doxee doxal ba taali bi xam ne noonu la nañ te tegu na caaw da sa war na coono bi mu nar a sonn ci ci taalibeem ak mbokkam du mës ko benn sëriñ mën ko nangu ko sonn ci ay taalibeem kooku mu amu ci woon morom. ñu bokk ci sëñ Tuubaa ñëpp rafet lañ aw doxinam rafet lu it dem yare ak njabootam ci ak taalibe ba nga xam ne ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi dox sëñ Abdou Xaadir daane wax daan si Moussa Bassirou am nag taalib ci wéet ak ki wéttali ko loolu joxe na lool. yàlla na baaxee. dañuy ñëw ci ay bisu Maam Fallu yàlla dafa mànd ak moom ci oto bu ko lañ jóge joxoon jóge am na ñëw ci buntu xëy buntu xëy blaat boobu Amadou Karim Gueye mooy ministre des forces armées moom la Madi Sissoko yabal Madi mooy wut si moom ci réew mi boobu daa koy prestation su suma tukki yaa doxal na bi sëñ Abdoulaye jëlee kàddu daa tënkoon ni muy liggéeyee ci yoon wi xam le ne yoon yi moo fi nekk bokk yi ak Tuubaa ci boppam ak digganteem ak taalibe yi ak waa waa góor loolu nag mu seetlu ko ay cër waaye lu aj ci biir Touba dama ko dégg ko dégg sëñ Modou sëñ Modou jumaa ji dama ko dégg sëñ Cheikh sëñ Cheikh Fall moom dama diggante waa góor sëñ Cheikh Bousso laa fi laa fi doxale maag taalibe yi nag doxaloo fi kenn maa ngi ñoom rek ma lim nag moom suñu daal mooy xam ne ñi ma lim nag ku si ñëw fi man dama wax leneen lu lu lu noonu ci ñoom na nga xam ne neexuma ca dégluwuma la bu wa bu dee ci sa sa sa noppi na nga xam ne mere naa la loolu tënk ay kàddoom moom la ñu daal yàlla baax ma it bañ jógee ci jotaay ba ana maa ngi fi mu saa boobu daal mi ci baraag boobu fi ñu fi ñu si bàyyoon ci këram. daan na ko noo dégg wax ji mu ko lépp rafet te jub waaye man nag sama piir de moom moo ci moo ci jaaxal mu ne ko ah, mu ne ko sëñ mbañ jigéen la fi doxale woon daa fellu daam daraame la fi doxale woon man nag ginnaaw foofu foofu laa tabbi nanga ma wax daa ko def waaye dama la ñaan nag tere bi yi nga xam ne kenn du ko si diggante ñoom nawet bi moo ci moo ci kenn jiitu parce que naa yéen doxal lii mu sant waaye lee parce que naa yéen kenn moo ci mën. kenn na dëgg. man dafa ñaan taalib bi moo ko ñor yéen ñi nga xam ne yéen sama rek ak waa Darmeen gépp maa ngi leen ñu suubu yoon taalib boobu gii na seen noom bañ ko wàcc. Serigne Moustapha ak nit yi diine yi nga xam ne ñoom la fi fekk kenn ku nekk ci ñoom dafa am nu la sëñ Moustapha jàppe woon yow itam nga am noo ko jàppe dafa bari lu mu dox lu rafetal diggante ñépp ci ay bokk bari na diggante bu mu dox ba diggante ba rafet kenn xamul ni moo ko dox mësu ko tiitaroo bu la xasee jàpp ni tamit amul jàpp joxe lii bàyyi lii dalay jàpp bu wér man nitam lool mën a defar bokk lool di puso buy ñëw ci yoon wi ak ci bokk gi ni ko bàyyi meloon sëñ Basiiru kii da ko waxoon ne ko loolu ñuy tabaxee ta tañ ko tudde maaluj ab tërël loolu la digal yow Basiiru nga di ko def ci yoon wi moo gis foo siinu fett fett rek noonu yi def demal la demal dara <laughs> loolu loolu ma suñu salaagu dégg euh, loolu kon loolu loolu loolu mu ne loolu mooy liggéey suñ loo tax ñu nit luy taxawal yoon wi rek ak luy tax dara du ci mejj moo war a doon suñu liggéey. kan mooy Cheikh Mamadou Moustapha ci fonk diine ak fonk sharia waaye xaqiqa moom buñ la Cheikh Mamadou Moustapha sa xel du ñëkk dem ci lu dul moom xaqiqa bi mooy bëgg Sëriñ Tuubaa ak taalibe gi ak fonk kilifa gi ak wamatu loolu moom da caa nekk ci kaw ñëpp kon bii ñu nag mooy. Touba bari na ci gone yoo xam ne yi seen fonk lislaam tax na fajar sax ci jumaa ji lañ koy julee si waxuma nag yeneen yeneen waxtu yi leen fiy fekk nga xam ne loolu ab liggéeyam la ñun ñi nga xam ne nun la samp ngir ñu liggéeyal ko liggéeyam boobu ci lislaam mu def na noo xam ne taxoon na mënatu na miin keneen ku dul moom ànd ak ñun nag ci pas-pasam bu bu dëgër boobu ak farlam googu ak yitteem ju koy jooju nga xam ne lu ci waay xër xër da ciy daw ci gannaawam te du ko ci mën a jot waaye mu dimbali woon nu ban ànd ak moom ca loola dimbali taalibe bi yëpp yëpp yëpp ñi nga xam ne ñoo aju ko Cheikh Mouhamadou Bachir ak ñi nga xam ne nii nangu nañ ak royukaayam ak nekkam royuteef dimbali leen ca yoon woowu ñu di ko doxee xam ne ay jullit lañu ay murit lañu fonk lislaam lool fonk ak taalibe bi lool di dox ci sharia di dox ci xaqiqa bi ma dëkkee baaw baaw euh, ma toog bés ñu ni ma sëñ Moustapha Bachir ne nga wuy si ko Kolobaan mu jóg jaaruma sax ci sëñ Cheikh pour wax ko parce que xam naa ni farata la may doy ma dem ñu toog ci saal bi tuuti mu ni ma agsil ci néeg bi ma agsi ci néeg bi mu woo sëñ Muntaqa sëñ Muntaqa ñëw mu ni ko tàllal sa loxo mu tàllal loxoom mu ni ma jëlal sa loxo nga teg ko ci loxo sëñ Muntaqa ngeen fasante ko lere mu ni ma ndax fi nga féete sëñ Cheikh la ma féete waaw tabaarakallaahu <laughs> loolu maag sëñ Muntaqa ñu seq ko te sëñ Moustapha Bachir moo ko moo ubbi yoon wa. moom bi mu dikkee dafa wéyal la Cheikh Bassir waxoon ndax Cheikh Bassir dañoo wax ne dafa wax waa ka waa fii Touba Gallas ñoom ne leen dee leen jullee ji fële ca Mérina ajjuma nga xam ne kon mu ngi bàyyi xel li lislaam wax ne bu fekkee ne jumaa am na fi te juma jooju ëpp gudd waa dëkk bi jan la war a doon. doon seeni wëllëre nga xam ne Baye Mbaye Diène mu nekkoon fii nee na ma Cheikh saa su Cheikh Mouhamadou Bassirou ñëwee fii benn fan wala ñaari fan nga gis fii Cheikh Cheikh Ibrahima Niass noonu la meloon nag waa Léona muy waa kër Khalifa Niass noonu la meloon nag waa Kaneen noonu la meloon nag mboolem kilifa yi nekk ci dëkk bi loolee nag ba Cheikh Mouhamadou Moustapha dikkee dontalee moom amul jot gi Cheikh Mouhamadou Bassirou amoon ba di fi yàggee na mu fi daan yàggee waaye mi ngi jàpp loola. jàppaloo ko ñu fi bàyyi. dafa bëgg mbokk bëgg bëgg nitu boppam bëgg bëgg lu aju ci moom lépp moom kooku mbiram la mbokk moom ni ñu koy waxee mooy li mu bëgg ci mbokk moom neexut neexut dab waaw ku fonk mbokk la waaw ku fonk dëgg la it nag waaw waaw ku jub la it ci wàllu gépp nag di di santaane jub waxtu bu nekk fu mu toll. maanaam maanaam bu dee ci wàllu wàllu wàllu liggéey noonu la ci meloon nag daana ma woon te moom mu jëkk lebal itam lii ma la wax ba nag jàngal nañu liggéey sama kër tam moo ko taxawal bi bi ma téye nag ba noppi ci man ne ma nag léegi da nga sancal ma njote njote gee suñ suñ suñ Moustapha sancal ma foofu man nga sama yaay nga fa sama yaay fa la nekk waaye suñ Moustapha moo moo moo ma sancal foofu moo daje moo moo woo suñu seen jigéen ak ñoom gaje ga ñoom ñii sëriñ gaje ga ñoom ñi ñu doon ñu jóge daru ne doon dem di ñëw ci liggéey ba c'était mille neuf cent soixante quinze soixante quinze sëñ sënca sënca sëncal ma ne ma ne ma nag wutul may soxna doomi sëñ sama nijaay ko toppatoo lépp amul lenn lu ma jot ne ma nag boo ma la nga ñëw daal nawet jot mu lebal ma ne ma jox ma fukki bëri koy xott koo lebal moom yàlla dogale tam ma ma lool am naa ci téeméer bëri koog ñett taal fay mbay faal waaw loolu ci laay waxtu la martulaa dama koy wax dama su bay moo ma dugal ci mbay ndax man ñun duñu ay béykat waaye fi ne dama tam dama ci doxe di béykat rek Sëriñ Abdul Aziz Al Amin mii fi jóge sëñ Moustapha Bachir daf daan wax ni mooy sama secrétaire mooy sama chef protocole sunu nganu tuubaa ga yëpp dafa jël yëpp teg ko ci loxo Serigne Abdou ni ko seetal noo ko organisé. Serigne Moustapha Bachir mu ngi ko gërëm ndax lu nekk def na ko ci àdduna ba xamatul lu muy def kon nag yal na ko seen barke dal yal na ko barke mag ñi dal fa tabarakallahu masal na ak bokk yal na yàlla masal ak bokk ci moom. sëriñ seex ñëw Touba gan si Cheikh Abdou Lahad ñetti fan yooyu ngan nga géppit ci loxoom la ko seex Abdou Lahad tegoon woo sëti sëriñ Touba yi nga xam ne ay rakkam lañ boole kook ñoom ni leen taxawul leen mu taxaw ko ba mat sëkk ci kero ca tàggatoo Cheikh Abdou Lahad dafa dal dafa wax ci làmmiñam fi may tàmbali ay wax mooy sëriñ Moustapha ba ñi lu baax lu baax li nga wax ci moom moom laa lay gën a dëgëral ngir boo gisee muy sama loxol ndeyjoor di sama loxol càmmoñ ci yitteem la ak taxawaayam ak pastéefam ñi fi nekk yëpp ay ay rakkam lañu ñi tees di ay baayam waaye féete na ma ci wet goo xam ne eh, ak ak nangoom moo tax mu féete ba ba tax na kon bala maa tàmbali benn waxtaan ngërëm lu moo ko gërëm moom laa lay jëkk seereel ngir yow ñu jëflantee gulaa man lenn loo xam ne lu ci moom la jaar li ci ci man sa dikk bi itam waxtaan ak ñëw géeg bis beeg lépp ci moom mi la jaar noonu mu ma féete ci sawet gi ni la ma féete ci wet yëpp yal na ko yàlla féete fépp man waxtu ma fa sëñ Cheikh Massane yónni dafa may wax ni rek moom sëñ Moussa Bachir dafa may wax ni nañu tase Touba bu ko defee ma dem yendoo góor gi sëñ Abdou waxtaan ak moom li ma sëñ Cheikh yónni tabaarakallaahu sëñ Moustapha Bachir wax ca la mu cay wax tabaarakallaahu ñëpp nekk ci jàmm sëñ Cheikh moo ma ne woon fu la sëñ Moustapha Bachir soxla bu ma tàggu waaye demal nga wuy ko mu ne ma ndax ku ku mën a dox lu rafet la man de mën naa seede ni nit mosul dem këram seeti ko posé ko problème génn am déception man mën naa ko seede man bu ma mësaan dem itam poroxaan daf may wax ni noppalul ba guddi mu ni ma ndax ay bokk guddi lañuy waxtaan bu ma demee ba nit ñëpp tëdd mu yónni Bachirou Babou waaw mooy ñëw jël simba ma dem rek waxtaan ak moom ci guddi maa ngi fàttaliku ndeysaan guddi gi nu mujjee waxtaan maak moom ak sëñ Dan Mbàkke ñoo ko bokk fa lañu toog di waxtaan ba trois heures du matin wallahi ci ci lu baax waaw moom sëñ Moustapha Bachir xamul lu dul lu baax xam nga waxtaanu guddi boo xam ni yow ki nga koy waxtaanal daanaka yéen ñaar rek yéen koy dégg la cay génn ak la nga xam ne lii jële na ko ci woy juram man toujours dama koy cité dama koy cité ah dañuy waxtaan moom sëñ Moussa Bachir mu ni ma sa bàyyi sëñ Bachir day nee na am na koo xam ne dee su ko dénk ay bóot mu ki nga xam ni bu xiifee ñaxtu bu reggee bajantu nee na kenn du ko dénk ay boot waaw ndax mbóot yoo ko dénk bu xiifee gis ku ko leel la ko waxoon mu wax ko ko wallahi lii dama koy nettali ci causerie yi may def man leen ci moom laa ko jële mu jële ko ci way juróom sëñ Bachir noonu mu ko doon defee Tiwaawoon noonu la ko defee Njaasaan noonu la ko defee Laayeen noonu la ko daan defee Tayba Ñaseen noonu la ko defee itam Medina Baye bëggoon na réew mi bàyyi réew mi xel ba képp koo xam ne yaa ngi senegal am fi benn rôle buñ la jox nga di ko joué sëñ Moustapha bàyyi woon na la xel. te daan na waxtaan ak moom waxtaan yu xóot yoo xam ne kenn du ko fekkee. laaj ko lii ak lii lan nga si xalaat te loo xam ne du affaire marabu sax affaire réew mi la. <laughs> danañ wax danañ waxtaan ci wolof. wax ko. moom état mosu ko dëkk ci lenn du am d'affaires yi du nit diine yi du kër diine yenn ñëpp na amoon jàmm. te ku ne am nga wet goo ko wekk. politiquement mos na neutre ci leen ndax toujours day engagé ci dara ndax dëgg la lay woon dëgg lay ànd ak yow dëgg la lay woon dëgg la lay jaarloo. Serigne Moustapha moom. li ñu ne diplomate. moo doon un vrai xam nga luy diplomatie mooy ubbiku ba euh, ñi jiite réew mi wóolu la na ñe mën la dénk seen bopp lu ñuy def waxtaan ci yow Serigne Moustapha àggoon na foofu ak Senghor àgg fi ak Abdou Diouf. fekk naa ko Touba benn bés. ñu toog ma ñëw jox ko sama àddiya rakk taalibe xarit ba ma ko joxee la ma ko jox Alaaji may sa seeg mi ma àndaloon yal na ko yàlla yéen moom itam ñëw ne ma kat am na benn kër buñ war a yokk ci boo paree visite yi ndax juróomi kër lañ préwaroon bu ñu fi jógee dem si xalif ba tekki ñaari kër am na yeneen ñaari kër yoo xam sëñ bi dégg na ko sëñ Moustapha dégg na ko bi ñuy jógee di dem la ma ko indiloon mu ne ma kaay yóbbu lii ndax lii prévoir ko woon dama ko joxoon moom la ma jox ne ma comme Alaji May Sene la ñu ngi lay xaar kër gi ak kër gi te ñëpp surtout sëñ maam Touba la sëñ Touba la lii nga ma indiloon yóbbu ko nga jox leen ko man man danaa xaar man. Senghor nee na Senghor nee na te loolu man ñoo wax na ma ko sëñ Moussa mos wax lu tebbi ko. président Senghor ci boppam wax na benn bés mu ne ma li ma neex ci sëñ Moussa Bassirou. boo ko laajee la mu xelaat da lay wax même bu la neexul kàddu gam lay wax yàgg-yàgg mooy doon liy am waaw yàlla dafa defoon dafa defoon ak dëggu ci làmmiñam ba lu mu wax rek loola loolu moo nekk ci xolam président Senghor wax na ma ko man mii Popenguine parce que dafa recevoir sëñ Moussa Bassirou cinq heures et demi six heures ma yegg si mu woo ma ñëw fekk Popenguine ma dajeeg sëñ Moustapha nuyu ko siyaare ko ñu toog ci salon bi ñu woo ma keroog la ma wax ne ma sëñ Moustapha fonk naa ko ndax am na jaaxle yoo xam ne su ma ci yeggee su ma ko wooyee moom dana wax la nga xam ne moom la ma sitoyen war a wax. lépp loo xam ne lii Senghor war na ko jël ci décision bu xam ne bii Sénégal yëpp la concerné dana woo Serigne Moustapha ne ko lii kat dama dama koy bëgg a jël ana lu ci jub ak lu jubul. dafa nuyu nit koo xam ne da ngay ñëw rek taxañ ko yóbbu da ngay fexe fekkee yoonu nit doon na ko dara. nga fexe mu leer ko nañ tey dana la yaatal ndax day discuter day casse droit day day xëcc dafa euh, dafa dafay responsabilité su ko defee bu demee ba xam ne yow lii ngay def intérêt yoon la amul foo foo foo yem rek yaa fa yem sa bopp. secret déjà kenn du ko révélé yoo xam ne yi Serigne Moustapha moo moo ne bu mu am mukk Senghor bàyyi ko yoo xam ne bu ko defoon dana indi coow lu bari. waaye lu ko ci sëriñ Moustapha mos bàyyil mu bàyyi. président Diouf ñëw sëñ Moustapha jàppale président Diouf pour l' intérêt du Sénégal. sëriñ Moustapha moom lim ñeemoon wax Abdou amul kenn ko ñem wax ndax doonu xarit dañu dafa gëmoon sëriñ Moustapha. loo doon doon homme d' état toujours sëñ Moustapha mi ngi sàmm diine. waaw sa xarit moom sa sa nekk. sëñ Moustapha Bassirou booba temps nee na dégg na li may wax ci mouridisme xam na ni it murid la ma di ko ma dana Tuubaa bu ma ko fekkee nii ko su ma ko fekkee Jurbel dem fa su ma ko fekkee Poroxaan dem fa réew mi yëpp xam ko Euh, mu jàppale ma ba mu ma jàppale ma jàppale ci lu wér ñëpp xam ko taalibe yeeg waa këram ak ñëpp mu wax leen ni jàppale leen Ablaye ñoom ñoom ñu jàppale ma kon loolu li ma may doole ci bi ma nekkee président ci la bokk dimbali na ma ci lu bare bari bari ndax dafa ma daan xelal sooy mu ñëwaan seet si ko daan muy xelal euh, surtout euh, bi may nekk sax CEDEAO euh, foofu laa gën a yàggee def naa fa fukki at juróom benn yore naa fi CEDEAO Lomé daan xelal lool lool wax dëgg dind na ci man ay jikko yu bëree bëri ndax euh, euh, xam nga kii euh, yomboon naa yenn yi di yëngatu boo boo boo mu waxee lenn loo xam ne mën naa kii dama daan waaye dama daan wax naan dama daan digal naan ma da dangay da am da am xel di xelli bu mu ni téeméeri nag benn yet moo leen da moo leen di sàmm waaye ñaar fukki nit ñaar fukki yar la waaw mu ni ku nekk yaram la kon nag surtout bu ngeen xamee ni bokk leen sax mel ni réew ñii ngi jóge Togo ñii ngi jóge Nigéria ñii ngi jóge eh, Burkina Faso kon nag da ngay seet ku ci ne ni ngay ni ngay doxee ak moom boo leen naree boole benn buum du yàgg du yàgg yu mel noonu la ma daan wax ku ne mbay ci Sénégal dañuy wax amul batoor waaye day sama njàmbaar googee nit ñi gis ci man ci mbay ba ni ma ko nawee sëriñ Moustapha moo ko dugal ci man lépp lu ma daa def rek damay xool ci sëriñ Moustapha lu mu sumb num ci saxe ba am résultat ma ne may kat du ma sumb dara te di rocc ko ndax rek dafa metti Euh, Serigne Moustapha mbay moom kenn mënu ko woon tëkkale kenn ndax euh, euh, dama leen di wax ci affaire mbay mbayu noor la njëkk la ma njëkk a seetsee ne batoor ki yow mbayum noor maali ci dugal sax ndax ci moom laa ci ndigalam laa commencé mbay chef saa yi euh, boole woon naa ko ci ñoo xam ni euh, wax dëgg soxla woon nañ koy gis waaye euh, moom mosula nangu génn mosula nangu dem dem fenn waaye wax dëgg day daan nañ mu yóbbante ay ñaan lu nekk daan mu ko surtout ki nekkoon Touba moom daan daan waaye rek ku xam Serigne Moustapha xamal nga ko ci liggéey ni ci meloon acteur de développement la mais médiateur social la aussi. sëñ Moustapha waxuma man liggéey gi waxuma sell gi mu sell waxuma soppalu gi mu soppalu waxuma jox gi mu jox boppam soxna Jaara Bousso waaye moom sëñ Tuubaa képp moo ko ñor. lu mu def lu nekk lu mu rëy rëy du yëg ni def na ko sax ndax lu tax ko ñor képp moo ko ñor man dama koy sentir lu bëri. daan na ma wax ni kër gi euh, nit ñi bari nañ fi. waaye doomu ki taalibe yi fi ne lu ma wax rek dañ naan waaw waaw waaw li ma bëggoon moo di ngay ngay ñëw toog ñuy ñuy diisante yow yow yow yow da ma bu ma waxee loo xam ne lu dul noonu da ma wax ne sëriñ bi gisee wu ma ko noonu waaw loolu la de sorte que Afrique ci yëpp xam nga liggéeyu liggéeyu kër maam jaaragee liggéeyu daara daara jéeg lépp lu ci ne maag moom dañ ci daan dañ ci daan waxtaan lool lool lool lool. ndax dafa am benn affectation bu ma amoon bi ñëwee mu laaj ma ne ma dégg naa dañ la affecté man ko wax mu ne ndax foofu baax na waaw xam wax dafa ndax foofu baax na ma ah, de baax na am na daraja waaye dama daan am si si alal wax dafa soppiku waaw ndax ndey de post yi di nga am daraja waaye danga daan am. poste bi gën a tuuti moom mooy ëpp waaw maire dama tey ngaa sant yàlla te nga sant yàlla mu ne ma te ngaa xool baykat yi nga xam ni nañ liggéey juróomi weer te bu ñu ko jaayee du ma téeméeri junni ñu dund si at yow nag ñetti weer jot nga am ay million da nga war a sant yàlla ah man ko man de mbàkke maa ngi jégulu sax waaw waaye man de yor si bunt bi ku ñëw ma ni yow nuyoo tam sa ngërëm moo ma gënal na waaw tàlla ma ñaanal waaw bi ma ñaanal ma jug ko sëñ Bas Touré sëñ Bas ne ma daal nañ delluwaat ndax loolu doyul bañ delluwaatee mu wax ko ko ne daal moom dafa bëgg ñëw di tuub waaw bëggoon yesaa njëbbal la mun ne ah, ban na ko sëkk de man na ko sëkk waaw damaa yeesalaa sama njëbbal ci lool rek ma ko wax man dama ko natt natt natt ba xam ni kii dara ñoru ko dul sëñ Touba moo tax su ma daa ñëw si moom sëñ rek laa daan xeeñtu waaw te fu ma ko gisee rek damay li may wax li ma ko daan wax dama koy wax da ngay dalal xelu taalibe yi seral seen xol. ku doon toppatoo taalibe mi la aussi. parce que procès yi ma daan dénk dossiers yi ma daan dénk toujours ay mbiru ay taalibe mi la wala ay taalibe jàmbur mu wool ma na ma diw de damaa bëggoon nga taxaw ko du sama taalibe taalibe diw la dëkk waaye yaakaar gi mu am si man ndax xam ne dama man am naa sañ-sañ si yow moo tax mu seet si ma pour nga régler ay problème am dama bëgg nga toppatoo ko nu mu gën a gaawee. Sëñ Moussa Bachir dafa wax ne man de ma sañoon sama taalibe dina am ngërëmal waajur sama taalibe euh, dina fonk diine sama taalibe ay kilifaam dinañ ko wóolu sama taalibe tamit dina ràññeeku cig taalibe waaw te ak taalibe balaa nga koy doon dangay doon jullit xàqan soog doon ab taalibe dafa am loo xamee ni saa yu ne dafa daan feeñal fu ñu mës a nekk di jàng moo xam ñuy jàng xase wa alxuraan bu waxtu julli jotee daan bàyyi la def te ñu gis. ñun digganteeg moom xaw naa yàgg ndax nekk na ma ak sëñ Basir juróom-ñeenti at doon nekk moom ñeent fukki at benn yoo xam ne fu ma ne moom fa yóbbu. doo ngay tarbiya yi itam ni mu leen daan def bu nooree mu di leen mu di leen mu di yóbbu leen fi barab dajale leen fa ndax bañu taxawal bu nawetee mu di leen liggéeyloo te it liggéey bi mu leen liggéey loolu itam da leen di taxawu di leen seet mu sëñ Moustapha moom du def du def lu mu xamul lu ko waay di defal dana ko xam ndax na nga koy defee moo la koy wax te itam boo ca defee loo ca war def muy moo koy dindi boppam kenn du ko defal loo xam ne nii bokkut ak ni ko bëggee bu dee tabax ak bu dee kër gu muy natt ak bu dee dëkk ak mën a doon day wax nii laa ko bëggee te noona dana aw yoon kenn ku koy mën a dindi mën faa def lu ko gën du am koo xam ne kii doomu aadama la mbaa nga xam sëñ Moustapha Bassirou xam nga ko ci moom as la ab jullit la ab taalibe la ku bëgg boppam ku bëgg bokkam la ku bëgg taalibeem la ku bëggu nitam la fii di gis naa fi mu taxaw fi ay taalibe taxaw boo xam ne bii bu ci yemoon nit doy na ab taalibe waxuma la ak àllaaxira ndax taalibe mun mu soxla nga taal sa oto yebal sa doom baa nga yebal sa jëwiñ la ci war nga def ko bu kooku bu ko bu ca tëj waree nga wax bañ tijji ko la ci war nga def ko ci loolu jëm si musuwaal foo nat xelam ak weesu na ndax da ngay dem da ngay dem ba defee ni ba kat ba katteem xel kii li muy wax yàllaa ko wax loo baa muy def yàllaa ko def nga demaa dema dem ba defe ne képp ku mbokkal Serigne Touba xam na Serigne Touba loo xamul mbaa man ci loo xamul mbaa mu def ci loo dibul c'est dara muy ko nag lu ak taalibe lim am lépp ci ci sëñ Tuubaa la ko ci la ko delloo lépp lu ko sëñ Tuubaa defar rek delloo na ñun loo xam ne ñuy tënk seen la sëñ Abdou Lahat waxoon ne yow ah, yomal xëyaam day bàyyi naa la samaam sëñ Tuubaa nun tëri bii sax ñu ko war a njëkk wax ndax képp koo xam ne kii sukk nga jëb sëñ Moustapha bu ko sax yitte matee mbaa sa tëri bi mat ko defal na loo xam ne lii kenn defalu loolu nag mm, dan dañ koy dañ koy sant yàlla ndax lii sant gi moo di moom ànd ak ku mat ànd ak ku mat ku mat a àndal boo boo boo boo manqué mu matal la boo matee mu dolli la kooku moom yàlla defal na ko sëñ Moustapha si ñu ànd ak ñëpp noonu la àndee ñoom kenn ku ne lu war ci moom defal na la ko bokk bokk fa mbokk yi la tàmbalee mbaagul saalum kajoor bawal njaamur foo fi dem la waaja ne woon kajoor ba njaamur foo fi dem ñu ne sëñ Basiru nee na waaye koo fi dem si suñu soir da ngay wax li ma suñu soir defal moom jàngalekat la woon ku ko ku ko topp de ah doo juum waaye juum du la